mbokku téléspectateurs yi ñu ngi am mbégte ak contentement di àddu ngeen di teewlu ci seen télévision Equivox TV di leen wax ni ngeen dal jàmm seen chronique bi dellu siwaat na tey ñu fas yéene waxtaanee lu ama am solo li nga xamante ne jamono ji ci làmb ji moom mooy yëngal làmb ji donte ne làmb ji bër na mais am na lu koy yëngal jamono jii euh, Boubacar Niang nekk suñu làmb daal di indi lu ama am solo question boo xamante ne question bu bu yëngal làmb ji la di ci diggante Balla Gaye Modou ak ki nga xamante ne moom mooy Eumeu seen ne qui est le meilleur mu daal di indi seeni ay jaar-jaar mu daal di poser question boobu waa axlu làmb amateurs yi di ci commentaire ñëpp di ci wax et loolu nag boo leen ko gisee mooy ñoom ñett ñëpp nekk nañu roi des arènes mu nekk benn triangle bu am solo ñu daanante nag seen biir Modou Lo daan Eumeu Sène ñaari yoon Eumeu seen daan Balla Gaye ñaari yoon moom Balla Gaye daal di daan Modou ñaari yoon waaye am na ñenn ñoo xamante ne wax nañ ci seen xalaat wax nañ ci euh, ci sujet bi balaa ñu cee gën a xuus mbokk yi ñu leen di fàttali rek ci jamono ji ñu nekk di jamono coronavirus mu nekk jamono ju xaw a metti ci askan wi fépp ci àdduna bi activité yëpp mën nañoo wax ni daanaka taxaw na ci àdduna bi rogalaat ba wàcc ci sunum réew alors ñu leen di wax ñu gën a respecter mesures d'hygiène yi di encourager ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ak équipe bi nga xamante ne yëpp ànd nañ ko ñu leen di encourager waat di leen jaajëfal di leen wax nii nañu gën a yokk waaye mbokk yi ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy askan wi nañu gën a respecter mesures d'hygiène yi c'est-à-dire ñuy gën a raxas sunuy loxo. Hmm, di respecter distance yi nga xamante ne moom la ñu joxe ba pare nag di toog suñu kër ku feu yi heure bi mu jotee muy maanaam vingt heures mu war ñoo fekk ñu ñëpp suñu kër di ñaan yàlla nag li nga xamante ne moom mooy jàngoro bi mu daal di fi bàyyoo ko ak jàmm. voilà mbokk yi loolu la indi woon ci coronavirus bi waaye dañuy enchaîner ak yéen rek daal di leen xool li nga xamante ne moom mooy ñetti ñii nga xamante ne ñoom ñooy dàllinkoor làmb ji Balla Gaye moduloo Lo Eumeu Sène voilà gis ngeen leen mbokk yi ñoom ñetti ñooñu noonu Boubacar Niang nekk journaliste nekk sunu làmb moom moo ko indi ne ñoom ñett kan moo ci mën mbokk yi xam nga ne Balla Gaye mu ngi am 25 combats mu ngi ci am 21 victoire daal di am quatre défaites ki nga xamante ne moom mooy Modou mu ngi am 24 combats mu ngi am 20 victoires mu ngi am benn nul ak ñetti défaites ki nga xamante ne nag moom mooy Eumeu Sène Eumeu Sène mu ngi am 20 euh, combats mu ngi am 10 victoires mu ngi am 7 défaites ak 2 nuls ak benn sans verdict ñetti ñooñu daanante seen biir Eumeu Sène daan ñaari yoon Balla Gaye Balla daan ñaar yoon Modou Lo Modou daal di daan Eumeu seen ñaar yoon ñoom ñetti ñëpp yàlla def ñu nekk roi des arènes waaye li ci doy waar mooy Eumeu seen rek ka nekk si ñoom ñett roi des arènes première sorteem nga ñàkk ko eh, pour le moment Modou amagul sorti xamaguñu lu muy def face à Ama Baldé waaye ki ci Bal euh, Balla moom bi mu nekkee roi des arènes face à Yahya Diop Yékini victoire bi mu njëkk am en tant que roi mu ngi ko am face à après la jël bombardier bombardier daal di ko daan waaye mbokk yi ñu dem xooli Boubacar ñaaw li mu wax ci article bi lan moo tax mu waxee ko ni ñu dem te ñëwaat. waaw comme ni nga ko waxee Cheikh euh, question piège la woon parce que boo xoolee boo liiree article bu baax man dama indi palmarès yi indi yu bëri mais man en tant que journaliste nanguwuma sax ne. diw c'est le meilleur dama dama kii rek bàyyi ko lecteurs yi bàyyi ko euh, waa axlu làmb yëpp ak sénégalais yëpp ku si ne am nga sa avis mais je pense que boo xoolee tendance bi dégagé wu si internet bi moo liiree ak yeneen yenn retours yi ma am je pense ñu bëri dañ jàpp ne si ñoom ñett Balla mooy meilleur mais am na ñeneen ñoo xam ne dañ jàpp ne Balla du meilleur mooy meilleur am ñu ne non Eumeu mënul nekk maire si kaw Modou Lo parce que boo xoolee ñoom ñoom ñett seen daanante yi dafa xaw a aussi redistribuer waat carte yi foofu parce que dañu daanante kenn si ñoom daanul euh, ñi si des parce que bu kenn daanoon ñi si des foofu peut-être débat bi dina xaw a pensé wu mais euh, dafa am benn équilibre bu am benn équite mooy danoo daanante donc boo xoolee si palmarès yi da ngay gis ne effectivement hmm, Balla am na am na nu mu tudd am na benn déçu moom parce que moom il a vingt et un victoire ah mais boo xoolee aussi nombre de défaites moom moo ko ëppale Modou Lo ba pare ëppale benn unité Modou Lo xam nga foofu aussi beneen polémique day am bon mais nga gis ne tamit daan na Modou Lo ñaari yoon donc foofu xëy na bu loolu ñëwee da ngay gis ne xëy na foofu moom argument boobu argument de poids la boo xam ne et de taille boo xam ne am na ko ci kaw Modou Lo bon nga gis na daal saa couteau tiré léegi nag bugguma teel a jeexal hmm, débat boobu teel a jeexal polémique bi moo tax dama koy bàyyi gaay rek xam nga ñu koy cons par nànk-nànk rek ba si kanam. mais bu ñu ko tegee ci euh, euh, palmarès parce que ci argument boobu la ñu gis est-ce que kon Eumeu Sène bokk sax ci euh, si euh, les deux mais effectivement Eumeu Sène. Euh, il a juste dix victoires c'est ça Eumeu Sène li ko xaw a plombé par rapport ak leadership bu ñeneen ñi mooy comme ni nga ko waxee ay sortem maanaam fréquence su combat am ñoo xaw a jeex. Hmm. parce que boo xoolee Eumeu boo seetloo même si dernière année yi rek Eumeu presque ñaari combat ñaari combat rek 2015 ba tey ñetti combat la def. Hmm. mooy bi mu 2015 mooy bi muy daanaat kii bala seen deuxième. face à face bi 5 avril 2015 boo xoolee Bombardier la bëriwaatal 2018 28 juillet 2018 donc nga xool 2015 2018 kon toog na 3 ans. 3 années blanches kon loolu li nga si mën a gis rek mooy anne blanche quand dafa am impact. mais et aussi les nombres de défaites aussi est du ko sonal. effectivement effectivement mais bëri na ci défaites yoo xam ne moom bi mu koy am. quand nekkuloon ténor bëri na noom de défaites yoo xam ne bi ñu ko am nekkuloon ténor mais effectivement comme ni nga ko waxee parce que boo xoolee bi mu nekkee si kaw wax léegi il a il a eu de deux la am. Mm-hmm. te Modou loo moo ko moo ko kii mu tudd moo ko teg. kon nga gis ne foofu ba tey Modou Lo bête noire am la te foofu sonal na ko fa parce que su nekkuloon ay défaite foofu day am plus de muy douze victoires donc foofu ba tey balance bi dina dina dina penser aussi moom parce que boobaa day aligner presque ténor yi si bëri da leen di daan ténor yi mu jàkkaarloo da leen di daan parce que Gris daan na ko daan na Bombardier daan na Balla daan na Lac de Guiers donc déjà muy quatre ténor noonu donc Modou Lo daan ko ñaari yoon. Balla aussi forum si ñoom lenn la mooy moom bëri na quand même ak ñoo xam ne ñële bëri moom mhm. donc loolu aussi atu la si moom c'est un noon non négligeable mhm. que Balla bëri na Yékini daan ko Yékini bëriwul Modou Lo bëriwul ak Yékini seen Sène bëriwul ak Yékini mhm. na ak Tyson ñaar ñee bëri Tyson bëree na ax Baboy ñaar ñee bëreewuñu ak Baboy te moo njëkk jël avance su Bombardier même défaite la fa jële mais moo njëkk jël donc nga gis ne que moom quand par rapport ak taayu adversaire yi quand même yoonam yombul woon quoi. voilà mbokk yi gis ngeen ki nga xamante ne moom mooy euh, bubakar Niang ni mu expliquer li tax mu bind article bi waaye comme ni mu ko waxee yéen ñi nga xamante ne yéen ay yi yéen ñi nga xamante ne yéen ay yi yéen a ñu mën a wax qui est-ce qui parce que li mu ko waxee dana metti lool ñu daal di addu kan mooy le meilleur bu ñu jógee ci euh, ki nga xamante ne mooy Boubacar ñaa dañuy xool abu nduur tamit di journaliste bu mag nekk record ñu dem xoolee abu nduur moom njàngatam lan la. boo xoolee tey ñoom ñëpp dafa nekk un boo xam ne bon latéral lañ ko wax si si wàllu mathématique client boo xam ne trois kii yi ñoo ñoom ñoo tolloo trois côtés yi ñoo ñoo parce que suba la ngay daan Modou ñaari yoon Modou daan Eumeu Sène ñaari yoon Eumeu boobu <laughs> wëlbati ko daan Balla ñaari yoon bon da ngay gisee dafa xaw ko waaye boo xoolee boo ñëwee par exemple boo boo nee en vingt ans de de carrière par boo xoolee kii di Eumeu mu ngi leen jiitoo lu lu lu lu mat <laughs> ans di dem mu ngi leen jiitoo muy Modou muy Eumeu Sène jiitoon na leen ci làmb ji lu lu lu lu lu ëpp di dix ans mais soo xoolee ci seen nombre de combat Balla Gaye Eumeu Sène ñoo ko ëpp combat loolu déjà da lay woon ne ñoom ñoo ëpp li li ñu bëri boo xoolee ci ñi ñi dajee dëgg la Eumeu Sène bëriwul ay victoire dix victoire la mais boo boo daanee Gris Bordeaux daan Balla Gaye daan bu bu bu Bombardier daan Lac de Guiers 2 da nga naan presque ji ji jeexal nga VIP nga xool Modou Lo euh, kii di Balla Gaye 2 diggante 2010 ak ak 2020 mu mu daan ñëpp. Modou Lo Baboy Tyson Yekini euh, euh, Tapha Tine vraiment mu daan ñëpp avec la manière donc kooku tamit boo xoolee lamb tey mu doo wax làmb te doo ko boole Modou Lo ñëw presque moom it di def fi lu mu def Gris Bordeaux e-, Eumeu Sène Lac de Guiers da nga booleen daan bon yooyu donc donc dafay dafay metti ku nekk am na am nga foor am am nga ay qualité am am nga ay ay ay ay faiblesse donc day xaw a métti métti mais daal su doon man la man mën naa teg ay critères ba nga xam ne su ma tegee critères yëpp ba ñu daje naa mën a di di mooy meilleur parce que parce que lii parce que lii papa parce que lii. kon daal question bi ba tey réglé guñ ko. non question bi du du du gaaw a réglé de Cheikh Oumar du du du lu ñu mën a évacuer euh, d'un coup nii nii rek quoi non non day day xaw a métti nga ne di mooy meilleur parce que comme ni mu la ko wax waxee il faut nga teg ko fu leer foo xam ne boo ko indee teg kenn kenn du kenn du ko mën a weddi. voilà mbokk yi gis ngeen Abou Ndour moom nag li mu indi moom nee na euh, facteurs yi nga xamante ne war nañ koo jël pour mën a xam qui est le meilleur dafa yaatu war nañoo jàng jàngat bi war na gën a yaatu euh, euh, war nañoo gën a approfondir li nga xamante ne moom mooy recherche bi moom loolu la gis moom abu nduur ñu koy remercier bu baax a baax waaye ba tey pare ma ak yéen de xam ngeen buur te mu nekk Dakar Actu buur ma bàyyi ko ak yéen mu wax moom it lan la xalaat ci njàng euh, ci lan mooy njàngatam ci li nga xamante ne abu nduur indi na ko. xam nga Boubacar Euh, du n'importe quel bindkat Boubacar dafay gëstukat d'abord et puis Boubacar euh, produit lamb la euh, loolu mu jàngat ci mbër yi noonu mu ko yi ni mu ko définir effectivement noonu la amee te lu tegu ci ay gëstu yu yu yu leer la yu tegu ci ay gëstu yu wóor la. mais selon yow est-ce que neex nañoo définir neex na génn kenn nga ne ko moom mooy le meilleur. si ñetti ñooñu. waa xam nga Sénégal fi mu ne nag làmb moom. waxuma lool de waxuma lool de. <laughs> yaa tuddee Balla Gaye cuqali. waaw tuddee Modou neex a faral dimance waaw booy ñaati ca euh, maanaam di cappaaculi bi. waaw mais Eumeu Sène xaw ma noo ko tuddee. Euh, Eumeu seen Eumeu Sène ndaanaan bi. ndaamali ndaamali. alors ñetti ñooñu nga xamante ne ils sont rois des arènes nan nga gisee ñoom ñett seeni li ñu def si làmb. Euh, pour nga taqal leen ci wàllu performance dina xaw jafe li tax. Balla Gaye était le roi des arènes Eumeu Sène était le roi des arènes Modou Lo était le roi des arènes xëy na bu ñu koy natt ci wàllu euh, ci wàllu euh, voilà ci wàllu victoire euh, bu fekkee nekk ci aspect boobu lañ koy te jàpp naa ne que Balla Gaye xëy na moom mooy raw wala xëy na bu fekkee dañuy chronométrie ci wàllu combat gëm nañ ne que Balla Gaye moom mooy moom mooy raw de ci wàllu ci wàllu performance ndax jàpp naa ne moom moo jëpp ay victoire waaw. dama xamul nag ci ban côté lañ koy nattee nag waaye ci loolu laa gëm bu dee ci wàllu ci wàllu performance euh, moom moo raw waaw. voilà mbokk yi gis ngeen buur buur moom nee na euh, buñ ko tegee ci euh, li nga xamante ne moom mooy palmarès Balla Gaye 2 moom moo jiitu te moo mën si ñetti ñi. alors mbokk yi mu nekk sujet bu ama am solo mais bu complexe Mame Less moom te mu nekk euh, Parcelles Mbooloo di fay entraîneur di euh, coach Parcelles Mbooloo moom jàpp na ni Balla Gaye du seen morom mu ngi ko wax ci sunu làmb nee na Balla moo leen mën te Balla Gaye moo leen gën a rafet palmarès alors mbokk yi mu nekk euh, triangle boo xamante ne départagé leen amaana sax du yomb parce que amul kenn koo xamante ne daan nga si ñoom ñoom ñoom ñooñu nii am nga victoire si ñëpp du yomb alors ñu bàyyi leen yéen mbokk yi ngeen wax ñu lan mooy seen xalaat entre Balla Gaye Modou Lô Eumeu ndax war nañoo tëgg benn troisième combat ñoom ñett est seen troisième combat du leen départager Balla Gaye dajawaat ak Eumeu Sène wala Eumeu seen dajawaat ak Modou Lô wala Modou Lô dajawaat ak ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye en tout cas mu nekk loo xamante ne dañ leen koy bàyyee ngeen indil ñu ci euh, réponse alors ñu leen di fàttaliwaat bu baax a baax mesures yi nga xamante ne moom la kilifa yi daal di joxe pour ñu génn ci corona bi ndax làmb ji ñëwaat hmm, namb nañu euh, làmb bu baax a baax xam ngeen ne Eumeu Sène euh, war na dellu siwaat Gris Bordeaux war na ñëwaat ñoom ñëpp yaakaaroon nañu seen i combat mu taxaw Hmm? alors ki nga xamante ne nag moom la ñu gën a soxla nag muy Modou lu le roi des arènes ak ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé mais ñu aussi Papa Sow Siteu donc yooyu yëpp mu war a nekk ñoo loo xamante ne lu neex a neex la ñu leen di sant di leen gërëm mbokk yi di leen wax ni danañu dellu siwaat indi leen beneen chronique bu gën a neex